les égyptiens ñu di génn non ils sont tristes quoi ils sont tristes defet bi defet bi xam naa ne ñoom ñooy seetaan coupe du monde fële seen télé télé bi nu mu tuddee sax télé Égypte fa lañ koy seetaane qui la coupe du monde à la télé la réponse de Sadio Mané à Gabaski ñu ngi di génn non ils sont tristes quoi ils sont tristes défaite bi défaite bi xam naa ne ñoom ñooy seetaan coupe du monde fële seen télé télé télé bi nu mu tuddati sax télé Égypte wala ñu koy seetaan qui va la coupe du monde à la télé la réponse de Sadio Mané à Gabaski. ca Égypte bala égyptien yaa ngoo égyptien yaa ngoo ko de mais xool leen seen sécurité bi. égyptien yaa ngoo ko de égyptien yaa ngoo ko ci égyptien yaa ngoo ko noonu di génn ils sont très tristes très très même tristes Mo Salah, Mo Salah est là, Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah. C'est de retour.